yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu bu baax am mbégte ànd ak yéen ci seen euh, découverte tabaski 2019 ñu ngi nuyu mbokk ñuy seetaan ci 28 pro TV euh, di ziar mbokki jullit yi mbokki taalibe yi te naa leen déwénit leen bàlle ñu àq ñuy amaat ak yéene àggale liggéey bi comme ni ñu ko waxee woon nag découverte tabaski ñëw nag tey ba fii ci tubaab Belel fekk fii sunu xarit sunu wëllëre sunu soxna soo xam ne ñu ngi koy ziar bu baax a baax sunu sëriñ. Mhm. Eh, di soxna maam say Mbàkke ñu koy ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ay tey di la jégalu nag parce que dañ la bett eh, noonu la leen mënoon def pour ah, fekk yow seq yu benn jotaay waxtaan boo xam ne ni. Mhm. mu ngi jëm ci nga saafonteeg askan wi lay seetaan mhm. eh, tamit baalonteeg ñoom àq ñu ci waxtaan tuuti rek ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan. waaw asalaamaaleykum leen defal su baax seen teewaay leen baal àq leen baal àq bi am kontaan nag ñëw gi ñëw seet si nga xam ne métta bett gën bett nag moo tax waaye bu noonu moom kontaan nañ lool ci seet si mhm. ngeen ñu seet si ñëpp soxna Mame Seye ko bëggoon a eh, ci làmmiñam mu waxal ñu moom mooy kan waaw man maay Mame Seye Mbacke bu Serigne Cheikh Seye mu suñu sang bu ak soxna Ndeye Mbacke bu suñu Cheikh Obal la mu daal mu si mhm. juddoo fii Touba Belel yaroo Touba Belel feer Touba Belel. Mm-hmm. Euh, Touba Belel fii nga tabaskee ren. wala at mu jot fi ngay tabaskee. at mu jot Touba Belel laay tabaskee. Mm-hmm. at mu jot Touba Belel laay tabaskee. loolu moo tax nga taamu bërëb bi fi tabaskee. xanaa ndigal <laughs> comme ndigal moom moo moo ñu fa indi woon moom. Mm-hmm. sax su ndigal ñu li ñu fa ci ndigal la sàmba léegi rek. ndax bi fi ñëw ndigal moo ñu fa indi woon suñuy waajur fi joxoon ñu nekk fi. nekk suñu digal ñu ndigal sax suñu xaw ñu koy defee beral bu màggal Touba loo xam Touba beral ngay defee digal moom ne sàmmante nag su fuñ toll rek mën sañoon ndigal la du ci raq mhm. alors noo tabaskee ren euh, da ñëw wala par rapport na ko daan defee rek am na soppi ko tuuti ci maanaam mbokk yi ñëw nañ seet si la wala bokk da nga soxla milieu boo xam ne da ngay xaw a dalluwaale euh, noo tabaskee daal nu ma tabaskee ren mm, soppeeku am na tuuti tuuti amut soppe am na daal naata soppeeku am ci mm, milieu bi ñu nekk muy politique moo tax fort soppeeku am ci ñu tabaski tabaski lu neex nag ñun ñëpp ñoo seet sañu saafan dañ ñun baal ñu balante àq tabaski tabaski lu neex am na kontaan tabaski tabaski bi la daal bëgg nañ ci torop lu mu soppeekoo ci côté politique euh, dafa am ñu leen daan seet si wala dafa am lu ngeen daan def ngeen ko def ndax politique te tax wala lu mu xam nga fa nga ba nga moom nit ñi ñaan ñooy ñëw la siyaare si. Mhm. te da ngay politique sa responsable fekk la beral nga bég ndax booy politique dañuy am ak ñoom jàmm sa baas dëgër ñu tam fu la teg mhm. bu def jëlee ñëw ñëpp dëgg si te ñëw ñaatu baas bi te seet si la. foo mhm. tax soppeekam ci. te man politique ñun ñu siyaare rek démarré nag moom sama militant yëpp ñu ñëw seet si ma beral. nga kontaan lool bég. ak lu mu sori sori ñu ngi la fiy fekk si daal. lu mu sori sori ñëpp ñu ngi ñëw di ma fekk si. di dem bale ci ngoon bale ñu ñaa ngi ñëw. nga bëgg ci lool ma bëgg ci torop nag. <laughs> mais jour tabaski noo noo noo def euh, euh, xam nga bu ñu waxee tabaski contexte yi mu laaj. ci lu bëri ci cherté bi ci wàllu dund bi am na lu bëri loo xam ne maanaam dafa tombeek tamit ndigal wàcc am na yu daan jënd yooyu euh, yu daan gis sa yenn ci soxna yi daan ko jox seen njaboot ñu koy seen yoon moroom soxna yi daan ko jox seen njaboot ñu koy jëfandikool ndax loolu am na lu mu changé ci tabaski ren bi de loolu day yokk waaye amul amul changé moom tabaski nañ tabaski neex toppatoo suñu borom kër teel def suñu lakk nag bin jullee ba ñëw <laughs> toppatoo lakk yi defaral ko ba mu baax <laughs> ndax jigéen moom dana taar taaru jigéen mooy say dañu amul toppatoo borom këram amul njabootam mhm. ma toppatoo sama borom kër baax na mu kontaan ak taalibe ci kër ga mhm. ba dara manqué wul nag li ma def lépp ci xew daal defal nañ ko moom mhm. ñu bég trop ndax man bala maa gën a kontaan dëgg rek sama borom kër kontaan ji man ci xewal yi ma koy taajal ak ni ma koy toppatoo bu ko defee rek moom baax sama xol day sedd moom. fii la woon fii. la woon waaw. Ah. loolu de yi euh, kon mbokk yi seetaan bég nañ ci lool parce que dañu souvent dañuy jàpp ne maanaam soxna yi euh, dafa am koo xam ne moo leen toog di leen defaral ko ni nga koy xëy yooyu yaa demoon di lakkal sa bopp wala da nga bàyyi lakkal la ba pare nga ñëw taajal man waañu maa koy topp tool maa koy def lépp sama bopp ma ko jox kenn hmm. am naa gone waaye gone nag bu fi nekkee kenn nit moom waaye bu nekkee moom naa dugal sama bopp ca waañ la ndax baat ko bëgg da def dara naa bëgg sama ñëw nga am barke ci kër gi moo tax ma ko toppatoo sama bopp uh-huh. tey ji maa toggañ maa ko daajal ah. <laughs> euh, euh, par rapport ak euh, ci wàllu maanaam li nga xam ne moom la ñu gis mm-hmm. ci xalif général wax ko ay fan yu yël ñu weesu mm-hmm. mu rek tabaski bi ñëw ci tere gi colin gi doxalini comme jigéenu par exemple boo daan bu boo daan gis sox yenn ci soxna yi daan jënd greffage bu quatre cent mille mm-hmm. ren ñi dem ba kolu quatre cent francs di defar ci loolu dafa mën a day gën a dooleel euh, taarub lislaam mm-hmm. loolu noo ko dundee ren jii. waaw loolu dama cee kontaan ndax sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér yàgg sëñ Tuubaa ak njabootam gépp ak njabootu sëñ Tuubaa gi loo fa dafa bëggam Tuubaa mel ne màkkatal mën a war donc comme ñuy jaawal jumaay Tuubaa jumaay Madina moom bu sañoon la Madina moom Tuubaa mm. ndax jigéen tam yiw da cee baax ndax fekk ñu sëñ Tuubaa ñooy royukaay war na chaque jour loo xam ne nii nit ñi dañu ciy roy ndax kaay jaa def lu neex yàlla baalu naq yàlla képp koo def lu wax la ku nekk rek ànd naa yow man fi mu taxaa wax moom lu ma ci ànd bu wér te képp kuy sama njaboot wala ñu samam lu jàmm danga fi mu taxaa bëgg danga ko def ndax nu suñ suñu jàmm rek bëggal tamit suñ suñu ëllëg ak suñu àllaaxira loo tax muy digle loolu xanaa kay ñaan ñu sax ci dàkk rek te bañ cee delloo ci ginnaaw loolu daal di ñaan moom. moom de am na yëg-yëgu kontante bu baax wax na ko. ci tere gi nga xam ne tere na nit ñi wuy si ko ci tere googu noonu. yow ba nga déggee mu yëkkati yooyu la kàddu rawatina ci jullit ren gi euh, daf la gën a may nga gën a maanaam am loo xam ne moom nga toogaatee. yow doomi soxna. boo xam ne dégg nga discours am bi mu wax ci. waaw loolu day dañ ci am ndam ndax fi mu taxaw moom murid yëpp ñoo ko bëgg lépp lu mu bëgg moom des na ko ci fekk. ndax dama naan moom mu ko bëgg a seen seen bopp ndax koo xam ne macha allah bañ ko xamee ba léegi xamul su ko xam ne lu sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla ak di lu baax ak di ko tere kon moom lépp lu bëgg rek na ni xam ak bëggam discours tamit cee kontaan ndax am na ndam ndax mën naa wax nit ñi bañ koo def ndax moom nit ñi moom léegi kenn te comprendre seen jikko maanaam nit ñi ko bëggal boppam te jikkoom nag la ko nit ñi bëggee ndax sëñ la boo xam ne dañ ko xamee ba tey kenn su ko dégg ci leen lu jaamu yàlla. ak liggéey kenn mësu koo gis ci lenn leen ci mësul si njabootam mais ba naan Daaru Minam ab yar ak taalibe loolu noonu leen bàkke wa Daaru moom daal ñu koy ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yaa ngi fi yàlla bàyyi ba mu àggal yéenam ci yoonu murit ak njabootam gépp ci barke Seex Xaadim ak soxnaam su baax soos di rakkam soxna Baali Muntaxa yàqu ci leen yàlla dimbali ko bàyyi ko ci ginnaaw sëñ bi ndax ak seen yéene waaye sëñ Muntaxa moom man ma ko bëgg bëggal boo xam ne mun mënu maa wax sori ci moom sax nag moom mm-hmm. te nag damaa jege ndax sama lépp la mënu maa sori ci moom mm-hmm. koo xam ne moom mooy sa nijaay di sa baay di sa lépp moom dama koy ñaare yàlla ma ci fan bu bu ñu bëgg ci Tuubaa rek àggale mm-hmm. waaye lii moom am na ndam ndax lim wax nit ñi def nañ ko ndam nag yàlla na yàgg ci loxoom ndax Sëñ Tuubaa nit ñi def nañ ko te euh, yat dara dugut loo xam ne dana métti mhm. luy jaxase diggante civil ak morom civilam mhm, mhm, loolu tamit jàngat nga ko waaw jàngat naa ko loolu mooy dama ñu am rek namoon naa wax ba noppi ay yet jóg wala leneen am daal te dafa ba noppi rek ñëpp dégg lim santaan ñëpp def ko te déggoo leen koo ci dégg wala kenn jox leen moo tax ma ne moom nit ñu am ak bëggam rek bëggam daal nit ñu baraab lan la ñaan di ko xam rek moom ndax moom kenn moom daal xam naa dinaa di ci dugal baati ndax moom lu mu wax rek kenn du teg baat na ko bëgg nañ ko defee. Euh, yow da ngay yëngu ci wàllu politique wax nga ko sànq ne da nga ñëw Touba benn tabaskee fi li yow ci gën a neex moom mooy say militante wala boog say militant ñëw sekk fekk si la. Mhm. yéen ñi nga xam ne yéenay politique nag te nekk ci dëkk bi. nga xam ne dañ fiy tere tamit lenn ci doxalinu politique boo xam ne nii maanaam ñaaw na ci gis-gis waaye ci dégg tamit di waxante kàddu yu ñaaw mhm. euh, nu ngeen jàngatee bis mbir moom la nga xam ne rawatina dañ ko gis ci diggante jigéen ak moromam. Mhm, ma ne loolu dama koy ñaawlu moom day ñaan nag kenn bañu ma cee dégg nag loolu moom maa ngi koy ñaan Sëñ Tuubaa nga xam ne lu ko jaam ñaan ma tal ñaan ma ko daal kàddu ñaaw yàlla ma ci kenn dégg fu su ma ko def politique dama ko jot tamit nag ndax politique bi lay jeex ndax mbokk lu jeex xam ne du jeex Sëñ Tuubaa tamit du jeex ndax lu waaye maanaam loo bëggul nekk Sëñ Tuubaa ko Sëñ Tuubaa pour lépp doole moo gën lépp te Sëñ Tuubaa jëm dama ko jot sama kanam heure mu xëyee rek Sëñ Tuubaa jot sama kanam ba wax ji ñaaw ji moom lu may ñaawlu la ndax politique da koo jurul ana man ana yow sax da koo jur wax ma naan nag dëgg tey ñu taalibe morom ja te lépp lu di ñaaw na ma ko sama waajur yi sax ñaanoon ba may may politique ne ma maa ngi lay mu ci dégg wax ci biir maa lu ñaaw noonu laa koy jaayantee ma ci wax lu ñaaw du ma ko def ndax jëru ko ndax lu fi jaar jaar dong mm-hmm. am ñu fi jiitu woon tey jii mi ngi ne jeexal te tamit yéen suñu buur yàlla koy sàkk bu yàlla na jeex day jeex kon nag jëru ñaawoo. lépp mm-hmm. ko def maa ngi lay ñaan tamit nag boo ko mënee wàññi nga bàyyi ko mm-hmm. ndax politique moom du dara lu fi jaar jaal dong la. amul njëriñ. amul moo tax ma dugg ci. xanaa social boo ko jàppee sama sama sama gox. <laughs> noo leen jàppale. social euh, nu ma leen jàppale parce que souvent nit ñaa ngi wax social mais nag souvent nit ñaa ngi social intérêt di def dara. Euh, wane ci ay maanaam message yoo xam ne message maanaam lebal naa la fay ma loolu de xaw nuru. Mhm. ñu bëri dañoo jàpp ne loolu social or que social mën nga koo def san mhm. dara politique. Mhm. waaw. man dëkk ma dëkk moom mën naa fee wax moom. ndax su ma waxee ñëpp may ma ci dugg de fii ma dëkk moo tax ma doon sama jëm bopp dong la mm. mën naa a politique ndax li may samay soxla mën naa ko faj ëpp waajur baax bi mën nañ ma ko saafaraal waaye nag ma nekk ci dëkk ñu néew doole ñi ne ca tool yee bay ñi taxani nga xool xam ne boo dugg ci politique li mu mën a moom nga dugg ci ma dugg ci politique ba léegi tubaab bi lañu mu leen loo xam ne seen lekol mën a fay leen ma dama a jox ngeen jël ñu wax jël ko leen mën a jox ngeen bàyyi lu ma tamit naa ko bokk ak ñoom lépp loo ma sa am tamit nag indi naa ñu tëkk tëkk seen loxo ñu waa dëkk bi amul leen loxo nu ma ko jëlee yamal ma naan fay leen ma bi du du maanaam askan yu nga lebal ñoo lay fay mm-hmm. mais yaa ngi lebalaate eh, indirectement ci état peut-être ñi nga xam ne ñoom ngay jàppale côté politique mooy ku mu muy état wala nga nekk opposition loolu laay wutudde ni ce que nit ñi dana leble rek ci noonu san mm-hmm. sans séentuwu ci daray état ah loolu nag de moom moom moom politique moom. ak loolu ànd moom loolu ànd moom. ndax su ma nee fi damay leb suñu doj état su ma wax dëgg su ko nuyu séenaan ne kii moom. <laughs> fu mu jëlee loolu fu mu ndax ku bëgg dara daa da nga ku bëgg dara ku dugg ci da ngaa bëgg dara ba tax hmm. ndax tey jii wa sañoon dana dooleel ba dëkk bi nga dëkk ñu seen bopp. mu sañ te ay ndoom tàng nan beral ñooñu buñ jaaxlee gis ñooñu ñooñu jàppale kon nag ku dugg ci politique moom daa tax nga dugg ci politique waaye dugg ci naan naa dugg selo na bon nga bàyyi ko dem liggéey sëñ Tuubaa mm-hmm. daa nga liggéey si seex yi sëñ Tuubaa yi mm-hmm. waaye ku dugg ci dara daa tax nga dugg ci dara waaye nag euh, ñi nga xam ne ñoom jàpp tamit bëgg na ñu jàppale ñu baax da gëstuñu ndax man politique wu département bi moom dama ko ñaawlu si naka si ñaaw naa ci côté yëpp ñaaw naa ko ci ne Touba département amul jiit jiitaloon kenn amul kenn ko fi doole koo xam ne rek ku ñu jaaxlee man ah, nga xam naa ma ñëwal ci kon xëy ci ci kii ñu doole ci Touba mu ci département bi tam département ba fu nekk di politique booy liggéey bu fekk da nga xam ne la politique yow muy liggéeyal war ngaa jàpp ñu département ba dooleel leen da ko bëgg da nga dara waaye nag toog fa nga toog dooleel kenn te bëgg ba soo dikkee ñu gañe ko loolu tamit ñu wax ci xol. moo tax du yomb a gañe. du yomb a gañe. c'est que xam nga ñàkk njiit bi nga wax. ko ko constaté maanaam yenn ci ay responsable da ngeen a manqué leader bi nga xam ne tax na naan leader bi bu ngeen bootoo ci gannaaw yéen ñëpp ne da ngeen d'accord ne lii bu ngeen àndeek moom da ci am ndam loolu day feeñ waaye day def dafa mel ni dafa am ay changement yu am ci diggante bi changement de dernière minute ci wàllu tamit nomination wala boog wàllu dooleel ci dooleel bu ma ko xee mën a nekk dooleel dooleel nit ki mhm. ci koppar ni bu yoree yenn koppar yi ñu foog ne moom mooy leader bi nga xam ne moom moo taxaw ci Touba mhm, mhm. loolu tamit day leen indil problème yenn saa doolul kenn ci koppar nomul fa kenn koo xam ne nga ne ki ñu ko nomee mën naa jàpp département bi loolu amut loolu nag bu amee moom bu ko ñëw bul mere kenn yaa perte sa bopp kenn ku doolu gis ma ko kon nag ñoom ñi xam ñoo ne ci kaw nag mooy moom président sax laay wax mu war seen bopp département bi doole nit ñi jàpp nit ñi te def ay nomination yi am doole xamal gisuma kenn ku fi doole koo xam ne ne kat kii mën naa jàpp département de Mbacké mu may département de Mbacké hmm. mais léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom ñoo ñoom ñoom lañu dooleel parce que danañ wane ay danañ def ay communiqué wane ne maanaam def euh, wut bëgg visibilité ci dara ñëpp jàpp ne kii moom dañ koo dooleel ba président parfois bu ñëwee sax da leen di cité da leen félicité indirectement ci loo xam ne maanaam dañuy jàpp ne moom rek moom moo ko moom moo ko liggéey daal. doole fi kenn fi mu kum neex moom na man maa gis président président mi may jox waaye ñen ñenn ñay wax lan lan yor man mi su ma ko yoroon naa def département lépp leen def ñoom. sa président am amul benn kenn kenn du jigéen du ko fi doon ne kii moom la dooleel mën naa jàppale waa département bi. jëlewul ko ci président. kenn ku mu jëlee parce que daanaka loolu yëpp mën naa ñëw. Mhm. yób fi woo ñu fi kenn ñu fi kenn ku fi jox sama yëpp ngay joxe. kon nit ñi kon mbiri temps yi war nañoo def ndànk kon. war nañoo def ndànk bañ a bañ a jàpp ne. moom mii. man ne man ah man man de man kenn mënu maa tax euh, mere président ndax loolu fi département bi département gisuma kenn fu dooleel. Mm-hmm. kon loolu lu ma deful gisuma ko. mais War TFM nag kon lan ah, am ku ngeen ciblé ne moom peut-être dañuy doy. waaw man tànn te ma kii département bi dé dé département bi dëkk bu ko doolee mu jàpp département bi naa ci kooku. Mm-hmm. waaw waaw mu doole département bi daal moom loolu la war mm-hmm. am doole mu dooleel ko waaye ñi ñu ngi lay jàppale ci loxoy kese am danga dëgër ne jigéeni du béy seen biir moom dafa mel ne maanaam euh, jaayante kii bi euh, maanaa bi euh, nan ma baal ci terme bi dafa dafa dafa gën a fës nit ñi dañuy gis ne kii waaw moom moo nekk moom mooy moom moo yore base bi kii dikk na ne déedéet man yore ma base bi soxna si dafa mel ni yow ñooñu gis ñu la nga nekk ci seen wet di jéem a buuxanteeg ñoom bu ñu dee def loolu nga gis leen yow est-ce que amul tamit lu waroo ci maanaam jouer benn rôle nga taaj leen Ah, dikk ne leen kat du nii bu ngeen bëggee président am ndam nii ngeen di def donte la eh, ci biir parti bi nga bokk ci président ngay jàppale tamit loolu est-ce que yaa ngi ciy dox loolu moom doxuma ci moom ndax doxuma ci mooy comme yow boo ci parti man maa ngi ci ñëw 2017 mm-hmm. bu ñëw ñëw di transement la waru ñoo jiitu war tabax da nga toog liggéey sa liggéey di xoole di seetaan mais loolu doxul ka war a lijjanti ka ca kaw 2019 ki war a mujjee ñëw sax moo war a mën na indi benn liggéey bu rafet xamuñu loolu xamuñu loolu ndax politique du biir de wasin kenn ku nekk moom que moog ka njëkk a jóg ak ku mujj a dugg kenn xamul ko ci jiitu. lu tax ñu naan ko waroo wax waaye boo waxee ñu ne waruñoo jiitu transement la mbuut wax nga teg si liggéey sab liggéey. ndax ñoom njëkk xam ne ñu liggéey xam ñu liggéey man ak département bi moom amu ci benn jigéen boo xam ne nii moom. Mm-hmm. ñaan naa la ci maa ma defal ci édol maa may xool ci yow du ko ma fekki pat du ma fekki pat du kenn sama liggéey daal laa licence sama diggante ak président boo ko gisee baax na su gisam ñëpp xam ne maa ngi liggéey. Mm-hmm. du ma ci xuloo du ma ci xeex lu ma ci war tamit baal naa la ku a ci mel nit mett jàpp maa ko def ma tamit baal ma. kon am na man nga xamu woon ne sax man am nga beneen parti xaw ma da ngaa transmis woon ko. waaw waaw réew mi laa nekkoon réew mi. réew mi Idrissa. Idrissa waaw ah. bi uh-huh. mais bi kon élection yi xawuloo def problème bi ngeen bi bi bi leen Idrissa jàppee fii ci tuubaa am lu leen wan daal. <laughs> waaw def naa problème bett na ma tamit nag bett maa def. ci naka. bett na ma ndax man ko Iddi la gañe Touba dama dama koy weddi. ah mais Iddi. naa man bu ko ma dikkee ñaa gañe sax ma ne dane ma dikk kat ci dëkk bi dëkk lu baax na def na ko fi. ah Idrissa i ci dëkk bi Mouride la dëkk bi fi nga dëkk Thiès. Ah. dem bëgg parce naa ñëw jébbulu. waaw ah. kon ah, nag daa daa xaar ba bëgg président ñëw jébbulu ma dikkee mi xam dafa juddoo ci yoon wi yoroo ci yoon wi am Touba kër lu baax bu def ko Touba bu ko ñëwaat du jaaxal. kon fi ne Idriss lu mu war a def fi mu ne nii Idriss ñett prés eh, présidentielle ngi nii boo xam ne. xanaa lim ay ay bagages am di dem toog jël kula jàpp. amul leen lu ngeen koy woowee pour mu ñëw jàppale. parce que parce que. Idriss gënu ñu waa tubaab rëcc moom. rëcc nañ ni ni ni ni mu leen. rëcc nañ ko bu baax sax rëcc nañ ko. Ah, te sa diggante naan eh, bu ñu yëgoon jàppale Idriss ndax Idriss moom mooy sunu Idriss. bu ñu yëgoon mag rëcc rëcc nañ ko. Hmm. surtout wax sëñ bu tedd bi mu waxaat bi Ousmane jàllee gën nañoo rëcc. waaw ah, ah foofu kat sëñ bi daf leen a junj. idi kat moom daa waxoon sax ne moom ni mu fi def ci Touba lépp wuyoo Mbacke assemblée mu bul yow bu fi wuyooti Mbacke jël si fii xaadim bu sax su wanaaru sa jumaay Touba ji ak sëñ bi fi tëdd. loolu waa noonu si àll waaw damaa koy ah, na dafa dem ba xoolaat ne man mii kat fii ma nekkoon baaxul xaar ma jëm fële tax fii la am. am ah, yaakaar tax ko am est-ce que ah, loolu dëgg la ci moom doon dëgg ci moom sëñ Tuubaa kenn mënu koo nax bu doon dëgg ci moom mu gagné élection yi mais ndam li ndam li am na ko Touba rek ah waaye jàpp ne bu amee gagné Touba gagné na Sénégal rek amu ko de amul ndam dem ah. sëñ Tuubaa kenn mënu koo nax bu ko doon dëgg ci moom mu doon président waaw mais du ngeen xalaat seen avenir ëllëg ci maanaam rawatina ci parti bi di APR ngeen di président ngeen di Macky Sall ngeen di jàppale. Mhm. moom en tant que président te mandat am jeex fi mu ne nii. Mhm. ndax euh, xalaatu leen ëllëgu parti bi. day daal di jeex ngeen am problème mu leader. loolu ndax du ngeen ci xalaat. man nag jàpp naa ni parti moom day gën a am doole te mandat bi ñëwaat ku nekk APR moo koy moo koy jëlaat. bii di ñëw bii ñëwaat. incha allah leaderu leaderu ku nekk. moo fi nekk. man de bu nekkaat koo xam ne man man ma nax ñu réew mi. non non ah en tout cas euh, li ñu doon wax naan bu dul Idi. Idi moom euh, comme que mu ngi tafu ci Macky nan tafu na tafu ci Macky topp ci Macky topp ci ba Macky dem. moom moo fi nekkaat leader bi taxaw ñi naan moom moo am charisme euh, euh, président en tant que doomu Sénégal bi nga xam ne war na mën a doy pour mu jiite réew mi. Mm-hmm. parce que ñeneen ñi dañ naan dañuy ramper. Mm-hmm. ñu toppoon ci gannaaw ku mel ne. Sow moom fu mu gañe Touba Touba dana gañe ak yeneen gox kay. yeneen gox ko. indi <laughs> gañëw Thiès. gañëwul Diourbel ma ñëw dee nga it daal moom daawa toogee moo tax 2007. ku nekkoon 2007 nekk deuxième ànd euh, bi moo nekkaat deuxième. ah Sonko. non Sonko troisième la ñëw. it daal mën na dem toogi rek. yéen <laughs> ah mais mais yéen. man sax heureusement man dama cee sant yàlla ndax man bu gañoo sama ma ko. Ah. ndax ma reetaan ndax ñoom ma doon socc commencé xool. ah damaa ndox kuy daanu. Ah, de sa sa mbiri maam la de moom. <laughs> man damaa ndox kuy daanu. Ah. ku du jëree ma tamit damaa ànd ak moom. ku du jëree ma loolu am soxna si loolu nag am ñu naan waxi politicien dañ naan ànd ak kuy daanu parce que. ah man damaa ànd ak kuy daanu. man ma ñëwee 2017. ci la président gañu ma sit assemblée. Mhm. ma ñëwee élection yi tamit moo gañe damaa ne kuy ba élection yi euh, bi boo xam ne dolli naa ci moom ma du ko am tax ñi fi nekk ñi ñëpp man mii maa tax ñu am ko ah, nekk taxaw naan man maa tax de man ne maa tax ñu am ko yow maam sa yow yaa ma te kenn joxam moyen nag gëmut kenn ku ne naa sa ay moyen na taxaw wax ko mbaa mu taxaw weddi mais après Macky après Macky gis na la. Macky gisuma suñoo toog sax ñu ñaar Macky mosut a toog ma recevoir ma. waaw déggu naa fi maaleykum dërëm déggu naa fi ab rumeur ñu naan Macky daf la jox oto bu bees. waaw sama xarit dem ba ko jox xanaa moom benn na ñoom ñaar Mouhamed Dione. Ah, kooku nga gën a xaritoo. waaw kooku mooy sama xarit. kon daal dañuy jàpp xarit xarit xarit la xam xaritu Macky la kon nag maam ñu xarit rek ndax hmm. xarit xarit la. par occasion te ma defal tamit nag ci Macky moo tax ma def ko. Ah, na ma hmm? ngi ci état de santé bu baax. tey na baax nañu seen biir yow incha allah. alhamdulilah loolu de xanaa moom la ñëpp di ñaan. moom la di ñaan. ndax moom tamit bu baax bëgg président bëggul dara lu ndamul président comme octave bi te gëm sëñ Touba man sax su may toog moom mu naan ma soxna maam say politique bi day jeex sëñ Touba du jeex te la mën ngaa ne ma sa toom toog xalif sanal di murit wala bëgg may dégg ci yow lu dul nga liggéey rek mm-hmm. te sax su nga jël sëñ Touba teg sa kanam ma kon kooku bëgg na ma mm-hmm. bëgg na ndamul sëñ Touba tamit nag mm-hmm. ndax sëb sëñ Touba bu sëñ kenn du ko dégg ci lenn loo xam ne lu ko xeeba la donc rek loolu la may loolu may loolu la may digal mm-hmm. loolu la may wax la ko war sama diggante moom lépp tam mi ngi koy def a ñëpp suñu baa ngi nekk Touba lu ci sama loxo lay jaar di ñëw Touba mm-hmm. te xas def xasee ba ko loxoom fàtt na loole mm-hmm. lu mu def nag ngi jëm président moo tax mu koy def tax mu soxlawul deen dama président dong la bëgg ndax leer na ma kilifa yi tamit ñaan ñu koy ñaanal surtout suñu bàyyi ñu koy ñaan ñaan tamit jot ndax moom day doomu yoon ndax moom maamam moo jébul suñu Basiiru jël papam jébbal suñu Basiiru boobu suñu Basiiru mi ngi seet borom maam jaare ba Poroxaan maam nekk kaw la maam ànd suñu Basiru doomu yoon wi daal la yaantu suñu Basiru moo ko mayoon papaam ma ci moom moom loolu xam na ko dund na ko sëñ Tuubaa ji rek lay dund mm-hmm. moom la ma jàpp tamit nag xool ci man leen mm-hmm. ak keneen ku mel ne ku jàpp la jàppe mm-hmm. dañ koy ñaanal rek yàlla may ko fan bu gudd ak wér te kàttanal ko te ko relation lan moo ko indi lu li ñu boole nag sama benn xarit bu dëkk mm, jaareen ñaar si sakat ndaw fekk moo ko woon dafa xam benn femme boobu suuf suñu sonal boo xam ne daal nañoo sonal Touba trop naa ko doom suñu sax papa sama xam naa la ko indil bi kooku dikkee wax ma ko ne ko tudd Mouhamed Dione laa soxla ma ne ko ah mu ne ma dan la woo ma ne ko waa baax na boo ma bi woowee ne ma man la premier ministre Mbacke man mu nuyoo mu ne soxla ma ne ko waa ma tàggoo su ma bàyyi naa ñëw mu toogaat semaine woo ma ma ne ko baax ma tàggu suñu seex. sëb di sama woo ma ne ma dégg naa ma xam ne Dione lay wo nu mu woo dem ma ne ko waaw munu maa dem kay mu ne ma wuy jóg mu ne waa baax baax ma ci bëgg ndigal bi fekk mi wàcc ko dem Espagne tollu trois jours moo ma téléphone ne ma soxna si dama laa sol dee ngaa ñëw mu ne ko baax ma tàggu suñu seex wala nga woo suñu seex tàggul ma ko mu woo suñu seex say suñu seex na waa joxaam ndigal na nga wuy si la ba ne ma naa bëgg nga ñëw jàpp lañu ba ma dem man man maa jar ak teggi na ko taal bi nag la ma moom laa gis ci moom mu mm-hmm. ne ko waa baax na ma tukki Espagne su ma ñibbisee naañu waxtaan ak yéen mooy may ma faas bari waxtaan ak man ma dem Espagne am fa 20 jours moo ma téléphone ne ma ñibbisi na élection législative bëgg day bëgg a ñëw mm-hmm. te man sañoon nga ñëw mm-hmm. ba maa fekk maa dëkk sama waajur ma ñibbisi ma dëkk bi cinq jours ma ñibbisee ma ne dama laa soxla nga ñëw ma ne ko dangay ñëw ba Touba waxtaan suma waajur bu ngeen d'accord ma ñëw bu ngeen d'accord rek du ma ñëw. ma ne ko ñëw Touba ay de mat la ñëw Touba kese émission yëpp wax ak sëñ Cheikh ne ko oh, moom judd na lu yàgg xamul luy politique. Mm-hmm. man mii waajuram du ma politique te maa ngi dundee barke sëñ Touba bi ku ma ko mën a jàpp téyel ma ko. suturaal ma ko àndam ànd ma ma bàyyi la ma mën a ko li nga bëgg naa ko def suñu see jox ma digal ma dem ànd ak moom la ma waxoon si jox lépp def na ko daa ma politique moom lu lay defal lu nekk rek daa ma naafi nga am ko ndax suñ tubaab ëpp doole lépp nag ab yar ak ngor ak teggin jëm ma waxoon waruma daal def na ko ah, ah, mën nañoo yaakaar ni euh, élection bi ñëwaat di élection locale euh, yéen a koy waajal ku ci nekk am nga noo ci bëgg a demee waxuma sax waxumay waxu dëkk bi parce que dëkk bi moom. Mhm. Euh, baatin lay demee baat moo fi doxee. ci mhm. euh, ku nekk xam ne maanaam ñuy doxee. li jëm ci conseil départemental. Mhm. bi nga xam ne maanaam est-ce que sentir nga conseil départemental moom mi ngi dox walla. conseil départemental bi nag wax dëgg yàlla moom ki ko yor sama xarita moo ma jàngal politique yi moom laa jëkk nekk war jàll conseil départemental xam naa su ma limee fi ma jaar sax politicien dama gën a mën a xasati. muy PDS ah, Fallou Mbacké. waaw ah, jaar nga PDS. ba jàll conseil départemental conseil bi maa ngi ci conseil yi laa bokk. Uh-huh. waaw waaye na mar doxee doxee wu ni uh-huh. état nag du bokkute opposition ndax boo nee opposition nekk di yor conseil départemental ni na nga bëgg amee dëgg doon deme uh-huh. waaye daal doxul moom. dama xam nag daa amul doole. nu demee waaye conseil bi doxul moom. di ñaan bii ñëw tamit nag moom ma taalal sama wax lu ñëpp taalil seen loxo. candidat candidat la waaw soxna maam euh, soxna maam Sey Mbacke <laughs> candidate la moom itam bu annoncé wu candidat la bu annoncé wu annoncé wu ci élection locale bii di ñëw muy conseil départemental <laughs> mhm. candidate la mbokk yi seetaan 28 Pro TV yéen ko déggal seen bopp mhm. euh, euh, dinañ xaar ci loolu yéen dinañ ci ñëw ci ni mu gën a yaatoo mhm. ndénkaane yi nga xam ne boobu ngay dénk muy say xarit say mbokk say militant militante soppe yi ci tabaski bii nii ban dénkaane la xanaa dénkaan tamit ñuy jaamu yàlla te liggéey ñu jigéen ñi xam ne ñun na yàlla boole suñu borom kër kenn ku sa borom kër nga dem ko fa nga war a ne taaru jigéen mooy sëy ndax loo rek ëllëg loo loo loo jiw rek du sax te nii muñu leen tamit da baalante àq te waxante lu rafet ndax jël sa morom mu jullit teg ca waat yooyu ñaaw ko wax lu ñaaw bu ko seen lu ñaaw sax ngay dëgg la loolu tamit rafetut hmm. nan ànd ànd ba rafet laabal ko yéen da jàmm taxoo ci sunu xalifa bi sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te koo xool ci moom rek dana àdduna jot jotal ngay def yéen i maa koy wax ndax politique bi day jeex te luy jeex moom jërul ñaawoo loolu daal laay dégg ah, man day information bi ma ci am man moom mooy soxna si candidate la ci conseil départemental <laughs> mais soxna si foofu xat na de waaw man nay candidat rek ñëpp laaj ma laaj te ah. mën naa ko ni a buuxante bi métti na defante bi dana métti buuxante kat politique kat loolu la aajoom dégg nañ sa beneen morom jigéen soxna boo xam ne mi ngi taxaw ne moom a doon rek ah. nga xam tudd tur tudd tur maam Xari Mbacke kan man te yéen a bokk liggéeyal APR waaw ñu bokk liggéeyal APR koo ci parce jox la ñu xam ne kookal ah. waaw jërë jëf mbokk yi seetaan 28 pro ñu ngi am mbégte bu baax a baax Euh, ci liggéey bi nga xam ne nii maanaam tàmbali nag muy découverte tabaski 2019 soxna maam say Mbàkke bu sëriñ Cheikh say moom la ñu fekki woon fii ci Touba Belel xanaa rek di la wax ci 28 pro bi nga xam ne nii moom moo la seet si mhm. euh, te ñu dippee ko 28 bi nga xam ne moom nga xam mhm. ci euh, maanaam liggéey bu sëriñ Touba mhm. ko gisee ak loo leen di ñaanal 28 ñu ngi leen ñaanal baax yàlla sàmm leen lool nag ba fépp fu ñu dégg bu sanaa si da ngeen fee ci bàkk suñu maa ngi leen chiffre bu baax ñu am ay teggin ngeen ñu xam lu ngeen def ngeen ndax département bi dafa naqari nekk ci journaliste waaye nag yaa suturaan leen ba kenn déggu ci yéen leen kon nag gën leen a góorgóorlu yàlla mi sàmm la yan ne sàmm yokk leen ba fépp sonal si nekk rek ngeen gën ko féete kaw. amiin jërëjëf jërëjëf mbokk yi ak sama xatu bopp bi nag Moustapha Mbaye. <laughs> waaw waaw kooku kooku sunu sunu doyen la. sunu ñu ngi koy nuyu de passage Mamadou mm-hmm. Moustapha Mbaye. Mm-hmm. bu Dakar Actu nga xam ne moom moom moo ñu daanaka moom moo ñu teete ci liggéey bi <laughs> ñu ngi ciy am mbégte bu baax a baax moom mi ñu booleek yow tamit ñu mm-hmm. ñëw fekk si la. te xam ne maanaam dañu la wax rek nga accordé ñu ko loolu euh, mënoon na fekk mu nekk ci ay xat-xat waaye lu mu xat-xat da nga ñëw leen fekk si ma fii ñun tamit ñu nangu loolu ñëw yëg-yëg googu noonu ñu am ko ci yow ñu ngi lay gërëm bu baax a baax mu nekkoon seen xarit Sidi Diakhaté ci présentation bi Serigne Mbacke Fall euh, Talla Samb Bekay Ndiaye ñoo kon ci wàllu caméra bi ak son yeeg image yi jërë ngeen jëf ci yeneen jotaay ci ak découverte tabaski